بن عثمان ولا ابن محمد بن عثمان الحريري البصري الحرامي téere bi ki ko taalif mooy alqasim moo doon aw turam ñi koy dàkkantale abu muhammad baayam di ali maamam di muhammad maamaatam di othman ñu ngi ko doon askanale alxarir muy soy moo tax ñu naan ko al imaamu alxariri ndaxte dañoo wax ne da doon jaay soy walla daf ci doon liggéey al basri mu nga dëkkoon basra benn dëkk bu mag la bu nekk araq ba jamono ji dëkk boobu mu ngi am muy dëkk bu iraq ci jëmi boppam réewu xam-xam la boroom xam-xam yu bare bari ci lislaam ci réew moomu di araq ca jamono saxaaba ya ba ci jamono yu yàgg maanaam ci jamono saxaaba ya ba ci ay siècle ci ginnaaw topp ca da gis ne boroom xam-xam yu mag yuñ doon wax ci lislaam ci réew moomu lañu dëkkoon wala ñu fa dëkkul woon sax ñu baree bari laxas nañ dem Iraq wuti xam-xam bokk na ci al imaamul Buxaari demoon na ci Iraq googu ca Bagdad fa lañ ko doon nattoo doon def li ñuy tuddee xalbul na foofu ca Bagdad la woon ca Iraq basra gogu nonu dëkku xam-xam la niko kufa kuufa niko ni ko bagdad nekkee moo tax xam-xam ku melni imam ahmed mu ngi dëkkoon bagdad imam ali sunna al khatib al baghdadi kufa ak basra bokku nañ ci dëkk yoyu tamit nga xamne dëkk yu mag lañ ci walu xam xam-xam ba nga xamne li di walu nahwu dafa am li ñuy tuddee yi basriyiina ak mazhabul kuufiyiina nga xam ne bokk nañ ci mazhab yi gën a siiw ci ma ci wàllu naxu mazhabul basriyiina nag moo ca gën a dëgër boroom xam-xamu luxa yu mag yi ak boroom xam-xamu naxu yu mag yi ñu bari ku ca dëkkul basra sax màgg na ba toxalu basra googu noonu ñu mag ñi ngay dégg ñëpp boroom xam-xamu luxa yi ak boroom xam-xamu naxu yi al imam ibnu durayd rahimahullah mu ngi dëkkoon basra abul aswad ad duali mi nga xam ne moo tëral fànn gi di fànn ak naxu mu ngi dëkkoon basra kon da lay wan dëkk boobu rek yaatu gu mu yaatu woon ci ay boroomi xam-xam ak fànn gi di fànn ak luxa ak fànn ak naxu al imamul xariri nettali bi doomam nettali ci sababu li tax mu taalif bi domam bu ñuy dakantale abul qasim abdullah mo wax ne bayam da nekkon ci jakkay bani Haram. am goor gu dugg ci go xamne ma nga solo ay sagar tukki kat mo ngi yore bagasi kuy tukki boo ko xoolee xam ne kii ab tukkikat la melokaanam mo ngi rap mo ngi ni ab kat di mel waye nak mu am fasiya fasahatul kalaam yàlla may ko mu am fasahatul kalaam maanaam wax ju leer ju fasaha waaye waxam yu fasaha yooyu mu koy defee ci ibaara yu rafet maanaam waxin yu rafet yu taaru mbooloo mi yëpp daal di kontaan ci moom bég ci façon boobu noonu muy waxtaanee fekk boobu def doon yalwaan mbooloo mi daal di koy laaj ni ko waaye góor gi fan nga bayee ko mu ne leen man maa nga bayee ko dëkk bu ñuy wax saruuj ñu ne ko lan mooy sa dàkkantal mu ne leen man ñu ngi may dàkkantalee abu zeydin mu daldi leen wax ne moom saruuj la bayee ko la tax mu bayee koo fa mooy waa ruum ñoo ñëw songu dëkkam daal di leen dal seen kaw di leen faagaagal mu daal di dawee dëkkam al imaamul xariri rahimahullah bi nga xamne goor gi def na waxtanam bi mo xoromu lool goor gi dal di koy neex mom abu zerin ba mu delloo ñi dajé ñom ñepp ku nekk di ñew di netali goor ga nga gis sa jàkka waxtan na wam fa doon def maanaam ku nekk rek netali mom goor ga ñewon jàkkaam fekk day dem ci jàkk ji bu demee wax ne li ak li ak li moko dal moko galankor bu demee ci benen jàkka jël benen mawdu ku nekk rek ñew wax la nga xamne ne ba nga ñëwé sa jakk goor gogu waxtaan wo la fa def ñom ñep ñi gis nek ah kon dafa melni goor gogu googu ñuy wax genn goor gi la sol mbub mu ko neex rek wala bëre bu mu dem rek sol mbub mu mbub mu ko neex maanaam melokan bu ko neex ci la imam abu Zaylin? ci la Al hariri rahimullah xalaat ne kom goor gi dal mom faana ko lol sopp nako mo ne nak dana jema top ndo goor gogu ci waxtaan wo mu doon def ak nam ko doon defé ci rafetayam mu daal di taalif li ñuy tuddee al maqaama al xaraamiya muy maqaama bi mu njëkk a taalif moo ci biir maqaama bi da nga fekk mu am maqaama bu mu tuddee al xaraamiya boobu la njëkk a taalif kon lii nii mooy sabab ak mu taalif téere boobu mu taalif maqaama boobu di al xaraamiya ginnaaw bu mu defaree maqaama boobu di al xaraamiya nag maqaama gi maqaama bi di dox di dox di dox ba dugg ci loxoob benn ministre buñ doon tuddee Sharafuddin Aba Nasr sharwan am nañu ne déedéet tuddul noonu mu ngi tuddoon amidu dawla abil hasan ali ibn abil aziz am na ñu wax lool te wax nañ ne wax jooju mooy li gën a dëgër ne ali abil hasan ali ibn abil aziz la tudd ndaxte dañuy wax ne tur woowu noonu lañ fekk ci mbind moo xam ne ni moom al musannif de al imam al hariri moo ko bind al moo ko bind léegi nag ñoom ñaar ñooñu kan la ci anu Charwan la wala Abil Hasan Ali ibn Abil Aziz kon wuute nañ ci kan la ci ñaari ministre yooyu ñi ne ban buur moo fa nekkoon ci jamono joojo ñi ne al mustarshid billahi moom la borom téere bi def waaye suñu sëriñ al ustaz Amar Samb hafizahullahu wa raa bi mu koy wax daf ne li gën a dëgër mooy al mustazhir billahi ndaxte bu ñu xoolee waxtu wi nga xamante ne fala la buur boobu maanaam ministre boobu ñuy wax ak jamono ji al mustazhir billahi nekkee woon buur ca dawla al abbasiya ñoo jamono wante ñoom ñaar buur ministre boobu nag bi mu jotee maqaama boobu mu neex ko mu daal di sant al imaam al xariri ne ko na continuer defaraat yeneen i maqaama ci la daal di continuer moom imaam al xariri defar yeneen maqaama moo tax ci biir muqaddima bi ma ngay wax ne mu sant ma ko koo xam ne nii mënuma delloo ndigalam mënuma ludul topp ndigalam mu daal di taalif ko façon bii nag alimaam alxariri rahimahullahu taalifee maqaama dafa am ci kum ko royee muy ku ñuy tuddee badiu zaman alhamadani rahimahullah maqaamaam bi ba léegi mu ngi tasaaroo doon te siwul ñu koy jàng ci suñuy daara comme ni bu alimaam alxariri siwee man moom gisaguma fu ñu koy jàngalee euh, bu mu royee ci badiu zaman moom lay wax ci biir ne أتلو فيه تلو البديع وإن لم وإن لم يدرك ظاله شيء والظليم من دينا توب لفم بديع بديع الزمان دونت غات بو راغبي منول جوت غات بو دوف بي تما موي غات بو راغبي بديع الزمان موي غات بو دوف بي لولو ا آه، تي ولا سوفه لوكو لوكو واخه بديع الزمان تميت موم فاصون بيغا خامني تي لا تاليفه موي مقامه كونيي تودي الجاحظ moom moo daan jëkk daan jàngale ci façon bu mel noonu jàngale bu mel noonu ku ñuy wax aljaahis moo ko njëkkee woon boo jàngale bu neex bu xoromu ñoom badiu zaman ñëw ginnaaw gi daal ko ci roy alimaamul xadiis itam ñëw daal di topp yoonu badiu zaman boobu noonu ba mu ñëwee tamit mu jëfandikoo la badiu zaman defoon badiu zaman dafa jëroon ñaari tur ku ñuy tuddee abul fatah al askandari ak ku ñuy tuddee isa hisham abul fatah moo doon batalul maqaamaati moo doon acteur bi masalan moom mooy joué film bi abu isa bnu hisham maanaam abul fatah al askandari ak isa bnu hisham isa bnu hisham di nettali li abul fatah di def muy batalul maqaamaati imaam al xari ba mu ñëwee mu daal di jël dàkkantalu góor googu mu gisoon ca koñam banu haram ca jàkka banu haram muy abu zeydin mu def ko muy batalul maqaamaati nga xam ne kooku def moom muy nettali kon mu def abu zerin muy batalul maqamat mu jël ku ñuy tuddee xaaris ibnu hamaamin wax nañ ne xaaris foofu boppam la ci namm amuñu ne deret namut ci kenn waaw dafa jël rek tur woowu daal di koy jox nga xam ne ni mu mel ni xaaris mooy nettali li abu zerin def mu jëlee ko ci xadisu yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam kullukum xaarisun wa kullukum hammaam maanaam alxaarisu mooy alkaasib mooy koy fàggu bu mu defee loolu moom alimaam alxariri rahimahullah noonu la taalifee maqaamam bi maqaamam bi yàlla defal ko ci barke lool mu tasaaroo ci àdduna bi yëpp ñëpp di ko di ko di ko di ko jàng ngir solo su mu am mu nekk téere boo xam ne la muy jàngale mooy luga ab borom xam-xam bu mag a mag la woon moom imaam alxariri ci wàllu luga ci wàllu naxwu moo tax taalif na yeneeni taalif yeneeni muallafaat lu mel ni mulxatul i'raab bi ñuy jàng ci suñu daara yi ci wàllu ci wàllu ci wàllu naxwu maam al imaam al Hariri moo ko taalif taalif na beneen téere bu ñuy tuddee durratul xawaas fi awhaamil xawaas ba tey moo ko taalif def na diwaan diiwaan boo xam ne ni ay lettre ay way ñoo ca daje euh, al imaam mu ngi juddu ci atum ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn muy 446 hijriya mooy bu gàddaay yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam amee euh, ñeenti siècle mu ngi génne àdduna ci atum juróomi téeméer ak fukk ak juróom benn am ñu ne fukk ak juróom maanaam ci juróomeelu siècle ba mu nga génne àdduna ca Basra ca quartier ba mu dëkkoon muy Banu Xaraame eh, imaamul Xariri ba mu taalifee téere bi nag eh, am na ay boroom xam-xam yu ko yu ko ŋàññi ci loolu nga xam ne moom la moom la def ci taalif gu mu taalif téere bi di wane ne kat ay mbir yu bari ak ay njuumteem di ko ko di ko ko ŋàññee waaye mu am tamit ñu ko doon jàppale bokk na ci ña ko doon ŋàññi mooy ibnul xachab ak az-zamaxshari waaye bokk na ci ña ko doon jàppale mooy ibnu barri ibnul xachab daf ko doon ŋàññi al baghdadi waaye ku ñu wax ibnu barri moom daf ko doon jàppale imaamul xariri mu ngi juddoo ci dëkk bu ñuy wax Machad dëkk bu ndaw la bu nekk ci wetu Basra ba mu màggee toxalu Basra ñëw sàkku si xam-xam daal di dëkk Basra comme ni nga xam ne borom xam-xam yu bari dañu doon toxaloo basara même buñ fa juddoowul toxalu basara daal di samp fa dëkk fa ngir wut xam-xam kon Imaamul Hariri Machaan la juddoo dëkk bu ndaw la bu nekk ci wetu Basra bu mu màggee toxalu basara daal di fay dëkk ba ni fa faatu waaleykum salaam wa rahmatullah kon noonu la alimaamul xariri génne àdduna fële ca Basra ca quartier bu ñu wax banu xaram di ñaan yàlla mu yërëm ko te jéggal ko def ajana muy këram fay ko aw yiw ma habbatin nasaim di ñaan borom bi tamit subhanahu wa mu daal di ñuy dëgëral leeral suñu làmmiñ ba lépp lu ñuy wax mu dëppoog njub di ñaan tamit borom bi mu jégal ñu njuumte yi nga xam ne ni ñu ngi ciy tàbbi wala yi nga xam ne nar nañ cee tàbbi ndaxte doomu aadama moom muccul ci njuumte faw dana tàbbi ci njuumte kullu bani aadama xata wa xayrul xataaina tawaabuun mbokk yi tamit ku ci gis ab njuumte mu daal ñu koy laaye biir defaral ñu ko xam ne doomu aadama moo matul bismillahi rahmaani rahim mu tàmbalee téeréem ni ko alquran tàmbalee borom xam-xam yi di ko tàmbalee mu rot ci ay ahadis muy bismillahi arrahmani arrahim maa ngi tàmbalee sama wax ci turu yàlla arrahmani yàlla mi nga xam ne moo yërëm bindeefam yëpp ci àdduna arrahimi yàlla mi nga xam ne moo yërëm ña ko soob ci àlaxira te mooy jullit ñi mu ne allahumma yow buur baatam allahumma miim gi dafa remplacé yaawu ni daawu ga yaa allahuma fi nekkoon ñi daal di jël yaagoogu soppi ko miim yóbbu ko ca mu jëntalu baat ba moo tax heure boo waxee allahumma doo mën a wax yaa allahumma xanaa mu nekk daruratu shaar boobaa moom danañ la ko may kon ñaari yaa ñaari xarfu nida mënuñoo mënuñoo mënuñoo dajee ci baat bi mënuñoo dajee ci ab baat daruratu shaar rek moo lay may loolu nga mën a wax yaa allahumma mu ne allahumma yow buur innaa naka ñun naxmaduka ñu ngi lay sant ala ma ca la nga xam ne allamta xamle nga ko min albayaani tukkee ci fasaha wa alhamta nga yenkewal ko min attibiyaani tukkee ci leeru xol min albayaani tukkee ci fasaha ak làmmiñ wa alhamta nga yenkewal ko min attibiyaani tukkee ci leeru xol mu ne yow borom bi ñu ngi lay sant ci li nga xam ne xamle nga ko ci albayaan ak li nga xam ne ni tàbbal nga ko ci suñu xol ci ak leer dañuy wax ne xamdu mooy moo gën a yaatu li nga xam ne ni mooy ashukru li leen tàqale mooy xamdu mooy koo xam ne dafa yeyoo sant moo xam defal na la moo xam defalu la ku yeyoo sant nag al itlaaq cant gu ñu joyal kooku yàlla la moo xam sant nañ ko moo xam sant ñu ko moo xam defal na la moo xam defalu la kon yaa yàlla dafa yeyoo cant moom sukkur nag mooy ko xam ne daf laa defal xéwal nga daal di koy sant kooku bu waalo la ñuy tuddee sukkur maanaam nga daal di koy jaajëfal ku la defal dara nga nga nga jaajëfal ko moo tax dañuy wax ne cant moo gën a mat yaatu waaye ci geneen anam tamit sukuru moo gën a yaatu cër yu koy def moo tax borom waykat ba di wax ne afadatkumu naamaau minni salaasatun afadatkumu naamaau minni salaasatun yadi wa lisaani afadatkumu naamaau minni salaasatan yadi wa lisaani wa damira almuhajjaba mu ne ñu ngi lay sant ci li ñu xamal ci fasaha albayaan mooy wax ju leer moom la yàlla di wax ne arrahmaanu allama alquran xalaqa al insana allamahu l bayaan doomu aadama yàlla moo ko xamal bayaan mooy mu wax nit mën a xam li mu wax bu dee ajmaawaat yi bàyyi ma yeeg yooyu même bu ñuy wax ni li ñuy wax mënoo koo xam kon al bayaan yàlla moo ko defal doomu aadama mooy nga mu wax nga xam li mu wax mën koo bind mën koo dégg loolu mooy al bayaan mooy nga wax keneen jëriñoo ci dégg li nga wax at tibiyaan nag mooy yow ci sa jëmmi bopp yow yaa jëriñoo dégg gi ci yow la yam ak tabayyun mooy yow nga dégg mbir mi xam ko ci sa biir xol bi albayaan nag mooy nga wax keneen dégg moo tax dañu wax albayaan li gayrika wa tibyaan li nafsik donte léeg-léeg ci alquran da ngay fekk at tibyaan di yor maanaam bayan moom la yàlla di wax wa tibyaanan li kulli cheyin foofu tibyaanan yu bayyinu li kulli cheyin la moo tax mu ne kama nahmadu ko comme ni ñu lay al ilham mooy nga jël dara loo xam ne ne yow jàngoo ko ñu jël ko daal di koy dugal ci sa biir xol bi xamal la ko mu ne kama nahmaduka comme nañ lay sante ala ma ca la nga xam ne jotal nga ko min al ataa'i ci may wasbalta asbalta ak la nga xam ne sëmbërtal nga ko min al xitaa'i ci muuraay mu ne ñu ngi lay sant ci may yi nga xam ni moom nga ñu moom nga ñu moom nga ñu moom nga ñu jotale nga xam jotal nga ñu al isbaax moom la yàlla di wax ne wa alaykum niamahu zahiratan wa batina yàlla jotal na ci yéen ay xéewalam xéewal yu feeñ ak yu nëbbu wa asbaxa alaykum kon may yi nga jotale ci ñun nga xam ne ni borom bi may nañu lu ne waaw boo xoolee doomu aadama xéewal yi ko boromam defal li ko wër boo ko xooloon dana xam ne boromam defal na ko xéewal yoo xam ne nii kenn xamul nu mu toll ak muuraay mi ngi ñu sëmbërtël isbaal xam nga boo ñëwee ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafay tere li ñuy tuddee isbaal ci góor mooy mu sol ay yére bam romb ay doojooram léegi nag muuraay mooy sutura sim la muur ba sëmbërtal ba mu jot ba mu jot ba ëpp sax waaw moo tax mu ne wa ta nga sëmbërtal minal xitaayi ci muuraay mu ngi lay sant ci malaanam sutura mi ngi ñu sàng ak may yi ngi ñu jotale wa naudu ñu ngi muslu bi ka ci yow min shirrati lasani ci ñëw kaak làmmiñ mooy ñi suñ làmmiñ di wax loo xam ne daf ñuy lor daf ñuy gaañ ñu shirrati lasani ci ñëw kaak làmmiñ waaw làmmiñ woo xam day wax rek léeg mu wax ba wax lu ëpp wala wax ju ñaaw loolu yàlla nañ ci yàlla musal léeg-léeg ñi naan ko da ngaa mu wax ba wax musiba moo tax toujours nit ñi di wax ba mu yàgg ñiy dellu ginnaaw di réccu wa fadulil xadari ak gàj ak ndesitu bébante mooy wax farata wax ji jeex nga nekk di wax wax yoo xam ne amul benn njëriñ ay waxi tasaw kasaw lañ koy tuddee yoo xam ne amul njëriñ nit boo waxee farata bu jeexee da ngay noppi moo tax mu ne wa fadulil xadari ak ndesitu bébante bébént mooy wax ju amul njëriñ kama naudu comme ni ñuy musloo bi ka ci yow min maarrati la ni ci ayibu dotam ayibu dotam al maarratu mooy al ayibu waaw ñi dotam mu yal nga ñu musal ci loolu wa fadulil xasari ak gàcce gaw mooy ñàkk mën a wax gàcce gaw yal nañu ci yàlla musal wa nastakfi ñi ngi sàkkoo fegu bi ka ci yow al iftitaana fitnawu bi troil maadihi ci xaabaabal ak aji tagg wa irdail musaamixi ak du mooyug aji jéggale mu ne ñu ngi ñaan nga fegal ñu nit di ñu tagg ba xaabaabal ca tagg wa ba loola ñun ñi fitnawu ca xam nga léeg nit tagg nit bam yëkkati li ci poosam yëpp daal di koy jox bu demee ba toog xam ne moom def na erreur wala nit tagg nit wax ko loo xam ne ni moom fi mu toog ma nga rus am kersa am am gàcce waaw léeg sax nit ñi surtout asalafu saaleh di leen tagg sax ci seen jëf yu baax yi loolu da mel ni ku leen di dóor ngir bañ guñ ko bañ ak ngir jàpp guñ jàpp ne da ngay yàq seen jëf moo tax di jay nit wala di tagg nit ba xaabaabal ca tagg wa loolu borom xam kam yi bëgguñu ko dèjà bëgguñu woon sax ñu leen di tagg moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañu wax ne laa tutruni kama atrati nasara isa bni mariam bu leen di ma jey al itra mooy jay nit ki rek wax ko ba wax ko lu ëpp mu ne bu leen di xaabaabal di ma tagg bu leen di ma jey comme ni nasaraan yi di jeyee yonent yàlla Isa ndaxte wax gi ñuy wax Isa doomu yàlla la almasih ibnullah loolu xaabaabal ci nit ëppal ci nit weesuwu ko ëppal ci nit loolu kon yal nañu yàlla musal nit di ñu tagg ba xaabaabal bam loola di ñu indil ay fitna wa irdail musaamee ak nit tamit ñu tooñ ko mu mën ñoo jéggal ba pare wan ñu ginnaaw bañ ñoo jéggal wa irdaayil musaami ak du mooyu aji jéggale kuñ tooñ rek buñ ko jéggaloo yal nañu jéggal kama nastakfi comme ni ñi sàkkoo fegoo bi ka ci yow al intisaaba sampu li israel qaadixi ñeel xeebeel ak aji ayibal ñu ngi ñaan tamit nga fegal ñu ñi bañ a sampu mooy taxaw nekk nit koo xam ne nii dafay wër di ñu sikkal di yàq suñu der dañu jam ñi sampu def loo xam ne ni daal moom daf ñu ci xeebee dañ koy ubbil ab buntu mu mën ñoo xas wala mu mën a wër yàq suñu der maanaam yàlla buñ def loo xam ne daal nit koo xam ne ji yàq suñu der jam ñu rek moom lay wër ba mu mën a gis loo xam ne mën nañu caa xeebe moo tax mu ne kama nastakfi comme ni ñuy sàkkoo fegoo bi ko ci yow al intisaaba sampu li israel qaadi ñeel xeebeel ak aji ayibal qadaxahu mooy ayibal na ko mooy taana fi ardihi jam na ci deram bu ne qadaxa bi qadaxa bi zendi masalan mooy kos arab day wax qadahu muy aybal na day wax qadaxa bi zandi tamit muy firi kosna. moto moo al qadahatu ba jamono ji ni arab yi dañ koy jëfandikoo jublu ci li ñuy tuddee birike ndaxte da ngay kos mu tàkk bu ñëk liñ ko doon jëfandikoo moy li ñuy tuddé zand Moy doju bey nga xam ne mag ñi moom lañ daan koslante ñëk almet di am mune wahat kil faadihi ak aji gatchel manam nit ko xamne ni mom moom suñ wër ba man ñoo wër mu ne yàlla nañu yàlla musal ba du ñu samp def loo xam ne kooku ku ñuy weer ku ñuy gàcceel day xotti suñu sutura day xaawi suñu sutura moo wa mu ne wa hëtkil faadahi ak xottik aji gàcceel fadaxahu mooy weer na ko nit weer la kon fadaxahu mooy weer na ko mooy gàcceel na ko rek al faadih mooy ki nga xam ne daf lay weer di la gàcceel wa nastaxfiruka ñu ngi sàkku sa njéggal min sawqi shahawaati ci màng bànneex ya ilaa suuqi shubuhaati jamee ko sa marché bi lënt ya ñu ngi sàkku nga jéggal ñu bu ñu toppee ay bànneex ba banneex yooyu dugal ñu ci ay lënt-lënt ndaxte a subuhat dañ ko war a daw comme ni ñuy dawee yu xaraam yi loolu la ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàng topp topp suñu bànneex nag ba suñu bànneex jiital ñu di ñu yóbbu ci ay mbir yoo xam ne dafa lënt mu ne loolu yal nañu ci yàlla musal ñu ngi ñu ngi lay sàkku njéggal yooyu noonu maanaam fépp fu ñu dem nga xam ne dañoo topp suñu bànneexu bakkan ba tàbbi ci lënt mu ne ñu ngi ñaan nga jéggal ñu loolu kama nastaghfiruka comme ni ñuy sàkkoo sa njégal min naqalil xatawaati ci toxal ay jéego toxal jéego ya ila xitatil xatawaati jëm ci plan yi ñaawteef wala pekki ñaawteef pekk mooy plan alxatawaat jamono ci xutwatun alxitat jamono ci xitatun mu ne ñu ngi lay sàkku nga jéggal ñu bu fekkee dañoo seqi ay jéego jëm ci bërëb yoo xam ne ni bërëb yi ñaawteef la pek mooy plan suuf si nga jël rëdd ko nga xam ne yaa ko defal ko ay mandarga waaw alxatiyaat jamono ci alxatiyaat wa nastawhibi ñu ngi ñaan wahaba mooy firi may na boo ne istawhaba mooy ñaan na wa nastawhibi ñu ngi ñaan min ko tukkee ci yow tawfiqan ak dëppale qaidan gay aji wommat ila rushdi jëmee ci njub wa qalban ak xol mutaqalliban bay aji walbatiku bay aji jàllar bi ku maal xaqi ànd ak dëgg wa lisaanan ak làmmiñ mutaxalliyan bay aji takaayoo bi sadiq ci dëgg wa nutqan ak kaddu ak wax mu ayyadan bu bil xujjati ci lay wa isaabatan ak njub zaidatan ngay aji dàkku ngay aji dàq ani zeyxi walis jéng wa azimatan ak dogu qaahiratan ngay aji not hawa nafsi bànneexu bakkan bi wa basiratan ak gis-gisu xol nudrik nga xam ne danañu xamee bihaa ca moom irfaan al qadri xam kembe ne ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq goo xam ne moom moo ñuy womat jëmale njubu borom bi di ko ñaan xol boo xam ne nii fu dëgg féete rek دغ جوج لاي اندال اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قلب بو خامني موم دغ رك لاي توف ندور ما الحق حيث دار فو دغ رك فيتي فلاي فيتي موم نيكو فا دي بار بارلو مومي ني لامي ني خامني ني لاكوي تارال موي واخ دغ مومي ني كادو غو خامني واخ جو خامني النطق موي في دي ولا واخ رك غو خامني ني اير بون كو واخه دانن كو مانا دغرالي او لاي mooy danañ am dalil ak njub goo xam ne danañ ca tegu ba nga xam ne ni heure bu jeng bëggee ñëw tàbbi rek moom day dàq jeng ga wa isaabatan ak njub zaidatan nga aji dàqu dàqu mooy dàq ani zeyri walis jeng mu ma ñu dogu goo xam ne ni heure bu xëccoog bànneexu bakkan bi rek day not gañe bànneexu bakkan bi mu may ñu gis-gisu xol albasira mooy gisu xol boo ne albasar nag mooy gisu bët mu may ñu gis-gisu xol boo xam ne danañ ci xamee ñun ñooy kan maanaam xam suñ dayoo xam nga nit ki dafa war a xam dayoom bañ koo romb xam ne ab jaam la bu xeebu boo xam ne dafa mën a bëri bàkkaar bëri tooñaange bari lu muy juum bëri tamit lu mu réere tuuti la la jaam xam kon nit ki lu ñu lay wax borom xam-xam nga borom xam nga loola daa war a tax nga a wàccee sa bopp xam ne lu tuuti nga xam loolu la yàlla dañuy wax ne wa ma utitum min al ilmi illa qalilan yéen ñëpp buñ boolee li leen yàlla jox lu tuuti la lu tuuti loolu nag ñun dem ñu war koo séddoo yonente ya am ca ñeneen am ca ñeneen am ca moo tax yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam lenn rek la ko yàlla wax ne ko ñaan ko ma dollil la ko ñaanut ko wér ñaanut ko gudd fan ñaanut ko alal ñaanut ko njaboot gu bëri ñaanut ko leneen ba qul rabbi zidni ilma yow yàlla dolli ma xam-xam heure boo xëyee da nga janoog loo xamul heure boo xëyee nag da gis loo xamul wala nga dégg loo xamul wala nga dem foo xam ne ni sax xamoo ko woon doomu aadama lu néew a néew a néew la xam lu néew a néew a la xam bee boo nga ne daanaka xamul dara rek lu néew a néew la xam te ba muy juddu sax dafa juddu ci ñàkk xam waaw ba muy ñëw si àdduna xamul dara moo tax léeg dégg ñu naan la diw dañ koo sol wala dafa indiwaale xam-xam boobu fan la ko indiwaale yàlla nee na da ngeen a ñëw ci àdduna wa antum laa ta'lamuuna shay'an xamule woon dara boo ñëwee nag di jàng di kii di dem kon nit war naa xam boppam nit ku war a xam boppam la bu xoolee boppam xool jëmmam xool ay mbiram dana xam ne ku doyodee doyodi la jaam bu xeebu la waaw abdun zalil moo mu ne nga may ñu gis-gis boo xam ne danañ ci xamee arfaan al qadri xam kem bi moo boo gisee kuy réeréelu nga xam ne ku réer la kenn gënta réer nit koo xam wala koo xam dafay xeebaate wa an tusxidanaa ak nga dëppale ñu bil hidayati ci njub ila dirayati jëm ci xam-xam nga defal ñu dëppale ñu teg ñu ci njub bañ mën a jëm ci yoon woo xam ne nii dañuy wuti xam-xam wa an tusaidana nga dëppale ñu mooy nga texeel ñu bil hidayati ci njub ila dirayati jëm ci xam-xam wa taaduna naa nga dëgëral ñu bil ianati ci ndimbal alal ibanati ci fasaha nga dimbale ñu dëgëral ñu bañ am ak fasaha wa taasimana nga musal ñu min al gawaayati ci réer fi riwaayati ci nettali gi mu ne nettali gii ñuy nettali nag ci biir téere bi nga musal ñu ci bañ wax ci loo xam ne ne ay réer la dara amu ci wa tasrifanaa nga wàññiñu an istafahati walis ndese wa tasrifanaa nga ñu mooy nga dàqal ñu nga soppi ñu an istafahati walis ndese fil fukahati ci mbóorante ki mooy kaf gi mooy kaf gi nga xam ne ni dugal nañ ko ci biir téere bi nga dimbali ñu dàqal ñu wàññil ñu ba duñ tàbbi ci loo xam ne day wane ne ñun ñii kat dañoo dese ku ko dégg xam ne kii waxu ku dese lay def waxu ku manqué mën nañoo kaf waaye nag la kaf day nekk wax yu am njëriñ wax yu tegu ci dëgg loolu yëpp ci biir kaf kon as-safahu mooy ndese yàlla nañu ci musal moo tax mu ne wa tasrifanaa nga wàññi ñu ani safahaati walis ndese fil fukahaati ci mboorante bi hatta na mana bañ wóolu xasaidal alsinati ngóoweefu làmmiñ yi wa nuk fa fegaleef ñu xawaila zaxrafati gàkki-gàkki masar xawail jamono ci xailatul fala narida ba bunu rot wala fala narida ba bunu root mawrida ma samatin rootuwaayu rëccu wala mawrida ma samatin rootuwaayu rëccu yàlla mosoon ñu ba ñun dañu am kóolute ne suñ làmmiñ yi la cay juddoo mooy ngóobee fi mooy la cay juddoo la ñuy wax maanaam danañ ci am garanti ne bu ñu yàlla fegalee rek buñ ci wax loo xam daf ñuy lor ngóobee fu làmmiñ ñi mooy li làmmiñ yi di rotal waaw léeg-léeg nit wax loo xam ne ni bu kàddu gi rëccoo ba pare rek day taxawaat di jéggaloog naan dafay defaraat wax jàkk loolu yëpp bàyyi xel li ngay wax jéem a fexe mu am wasatiya mooy mu tegu ci dëgg tegu ci xam-xam ba pare tamit ixlaas lal ko donte doomu aadama muccul ci te nag waaye bu boobaa bu koy def nga xam ne ni wax ja wala jëf ja yàlla kese moom la ca jublu waaye lam cay def lam koy royee mu ngi koy royee ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala mu topp ca yoonu borom xam-xam ya teg ci xam-xam yàlla man na koo dimbale ta mucc ci njuumte waaye njuumte mën naa bañ a bari waaye léegi boo seetlee jamono ji ñu bari dañuy wax ba pare buñ paree waat delluwaat ginnaaw lii laa ci jublu woon nii laa ko waxee nii laa ko nangam doonte société bi ñu nekk société bu jafe la waaye toujours li ngay wax na fekke ne jëmmi yàlla ji moo tax même bu fekkee ginnaaw gi sax am na nit ñu ko jàppee neneen wala ñu ko gisee neneen yow bu fekkee yàlla rek moo tax ngay wax parce que ne bu boobaa ak lu ca nit ñi mënta wax ak luñ ca mënta jàpp bu fekkee ne yow dëgg moo taxoon ngay wax boobaa dootoo dootoo ca delluwaat ginnaaw kon nit war naa am lu ñuy tuddee wasatiya ci mbir mu nekk mu teg ko ci xam waaye teg ko ci ak maandu bu tegoo ci maandu rek jeex na loolu mooy xikma yàlla fegal ñu tamit ba du ñu tàbbi ci gàkk-gàkki masala rawaayil mooy afaat railatun mooy benn bi gàkk-gàkk mooy ay tilim-tilim yoo xam ne nii rafetal lu rafetul maanaam fekk aw nar nga bëgg koo def dëgg fekk ay caaxaan nga bëgg koo def dëgg mu ne loolu yàlla ñu ci yàlla musal a zaxraf masara mooy rafetal lu rafetul wala fekk loo xam ne ay neen la nga bëgg saxal ne ak dëggal moo tax mu ne wa nuq faa fegaleef ñu rawaa ila zaxrafati gàkk-gàkki masara ba ñun ñu root baata war a day firi root wala dem ci teen root day firi tamit root si maanaam ñu diw de root si na ci dëkk bi léegi nag fii mën naa firi ñaar yëpp maanaam yàlla boo waa bu ñu yàlla dimbalee ci yooyu ñun du duñu tàbbi ci bërëb boo xam ne nii bërëb ab bàkkaar la maanaam duñ tàbbi daal ci bàkkaar wala duñu root tamit ci ndoxam bàkkaar falaa narida duñu falaa narida bu bunu rot wala ñu root mawrida ma samatin rootuwaayu bàkkaar wala rootuwaayu bàkkaar wala naqifa du ñu taxaw mawqifa man damatin taxawaayab rëccu bu fekkee yàlla musal na ci loolu waa doo fi nekk di rëccu wala nur xaq defu togguñu bi tabiatin ci toppaanga walaa wala maxtabatin du caageen yeddaanga wala nul jaa deful wéer ñu ilaa maaziratin jëm ci ngàntulu maanaam deful yóbbee ñu ilaa maaziratin jëm ci ngàntulu mooy jéggalu an baadiratin walis rëcc rëcc mu ne bu boobaa day bu ñu ci yàlla dimbalee kenn du ñu togg maanaam di ñu xatal moo tax mu ne wala nuraq deefu togguñu togg nit ki mooy nga koy nga koy nga koy togg maanaam nga koy nga koy nga koy jàppee dara daal bi tabiatañ ci toppaanga nga naan ko kat toppaanga gii da nga ma ko war a delloo tooñ nga ma fii sama xaq nangam ak yu mel na wala maa tabatin tamit kenn du la yedd naan la ni nga waxee nii wax ji nii nangam ak nangam bu ñu yàlla dimbalee tamit boobaa du ñu wax ba pare ñëwaat naan ñu ngi jéggalu lii lañ ci jublu woon yéeg na nangam nangam di expliquer ci rëcc rëcc albaadira mooy rëcc rëcc ab wax wala rëcc rëcc ab jëf moo tax mu ne walaa nul jaa deful wér ñu ilaa baadiratin jëm ci jéggalu mooy ngantulu mooy balu an baadiratin walis rëcc rëcc boo xam ne dab nañu albaadira bu ko arab waxee mooy rëcc rëcc ab wax wala rëcc rëcc ab jëf mun nañam foofu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam